voilà ami internet euh, Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax gis ngeen nag euh, fi ma nekk état d'urgence oblige couvre-feu également oblige parce que 20 heures euh, kenn amatul droit génn te fi ñu nekk nag mooy ci Maïga bi nga xam ne moo nekk au kër la ville de Thiès ñëpp xam ko ñu bëri nag di fi ñëw di jëndee spaghetti yi ah pomme de terre ak ah yu ñu demee ñoom ñoom brochette affaire yooyu yëpp ñu xool nag ndax état d'urgence bi am na lenn lu mu impacté si seen wàllu liggéey mbokk salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi. Ablaye. Ablaye waaw Ablaye naka naka liggéey bi actuellement. waaw sant rek maa sant yàlla bu baax nag. Mhm. mais liggéey tay moom. doy na waar doxul dara tay mhm. waaw am na ñaari jour moom démb ak tey liggéey doxul dara. Mhm. waaw. liggéey bi doxul. doxul dara. ndax nit clients yi dañuy ñëw wala ñëw. clients yi dañuy ñëw mais bërigul quoi. ñu ñëw jàpp ñu ñëw ñu bëriwul tuuti tuuti rek quoi. naka ngeen di liggéey. man fii laa liggéey brochette computer omelette nen baxal waaw lépp daal. Euh, ban ban heure ngay ban heure ngay xëy ak ban heure ngay wàcc. 6 heures laay xëy 19 euh, heures 30 laay wàcc. 6 heures. ak 19 heures 30. Mhm. laay wàcc yaa ngi ñëw wala ñëw. yaa ngi ñëw tuuti tuuti rek mais bëriwul. soo midi jot moom doo gis kenn mm-hmm. daal moom doy na waaru trop mm-hmm. kon affaire bi metti na seen côté waaw metti na ke metti na ke metti moom metti na trop trop trop trop trop wax dëgg yàlla temps yi moom dëkk bi dëgër na euh, euh, euh, suba gi ndax nit ñi dañuy ñëw di ndekki si affaire yooyu noonu waaw dañuy ñëw si ndekki ñu ñëw suñu dëkk bu baax mais bëriwul ay client quoi. bëriwul ay client waaw bëriwul ay client comme affaire bi soo ñëw rek xam nga gars yi dañuy ragal nit yi quoi loolu mooy problème bi ko waaw nit dañoo ragal nit ñi. waaw ñu ragal nit yi de. lan ak lan ngay man omelette laa jaay brochette computer nen baxal waaw eh, pousse pousse yàpp mhm. waaw. li nga doon jaay avant état d'urgence ci am. ak li ngay jaay jamono ji est-ce que am na différence. waaw ah, am nay différence parce que saa léegi dama léegi expecté amul dara xoolal sama bagage yi baa ngi nii dara amul léegi parce que xam naa léegi damay wàcc avant loolu saa yi nii expecté am na lépp am na mais temps yii nii nii dara amul fii nii heure bi mm-hmm. nan seer na léegi wala seerul tablette bi ñaata lay jar moom ñaata ngeen koy jëndee. ah loolu moom wax dëgg yàlla xamoo ko parce que papa moo jëndi nen bi ko mm-hmm. man damay liggéey rek mais papa moo jëndi bagage yi yëpp. Mm-hmm. waaw mais moom marché bu cher na de. voilà ñu ngi toog ak keneen bokk salaamaaleykum. maaleykum salaam. noo def. maa ngi fi. alors naka naka naka njaay mi état d'urgence bi couvre bi ngeen a arrêté vingt heures kenn warul génn euh, ndax loolu am na lu mu gàllankoor seen wàllu liggéey. non laal ni trop. trop trop trop parce que vingt bi ñuy joxe guddi liggéey nii am léegi vingt kan du génn mais suba si laay xëy si amay dégg benn béy mais du jeex mm, du jeex client amul dara amul bi daal wax dëgg yàlla dafa taxaw complètement trop trop trop trop métti na trop wallahi kon moom demee. non taxaw na laa la wax man daal awuma lu ma amul lu ma gis du taxaw. avant ak léegi bokkul. nan ngeen doon liggéey. man daal damay dem seeraay di jaay ay béy ay xaa ay yàpp ci pus-pus mais léegi moom instant yi mënuma jaay benn sax jafe la. nit ñi kenn du ñëw kenn ñëwul. man 6 heures. maa ci rek ci jaay bi su ma teel a wàcc su ma teel a jeexal ma wàcc su ma teelul jeex mun naa nag fi boo 12 heures wala 13 heures. est que yéen a ngi sàmmanteeg ak le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr li mu wax ci wàllu prévention di sol masque takk ay gants euh, ndax ak gel bi ndax yooyu yéen a ngi koy utiliser. maa la ko wax de dañuy def loolu yëpp loolu yëpp def for de zawel ak saabu ak madar tout yëpp la def waaw waaw. dara manqué affaire bi daal daal ma wax la rek amul doxul doxul fépp fépp la. yëpp a taxaw jaaykat moom jaay moom sa instant moom taxaw nag complètement nan ngeen di def ngeen def jamono ji est-ce que euh, loolu bu bu demee gënee continuer yéen du ngeen am gàllankoor. ah loolu kay bu lii kay ñaanu yàlla mu continuer parce que bu continuer kay du baax ñaan yàlla affaire bi jeex feebar bi yàlla nañ ko yàlla jëlee fi ci jàmm <laughs> mais loolu mooy moom continuer moom ñaanuñu ko yàlla. man kay xanaa déggoo lu ma la benn bay boo koy indi des na. lii da doon jaay béy ba mu damay jaay ñaar wala ma jaay benn bu mag mu jeex mais depuis affaire bi vingt heures bi commencé ba léegi affaire bi taxaw na complètement complètement ndax béy am na amatul. non amul amatul parce que kan du génni jam luuma luuma amul interdit. béy dafa fa cher fa cher fa cher cher day dem boo cinquante mille day dem boo soixante mille fa cher man daal lu ma lay wax daal affaire bi wax dëgg yàlla dafa metti trop trop trop trop metti na trop wallahi oh trop trop trop trop aw ma lu ma lay wax dafa metti wallahi Euh, jërëjëf euh, mbokku internet Thiès Info gis nga nag euh, yéen ko yéen ko déggandoo gis ngeen situation bi nag ak état d'urgence li mu jural jaaykatu mayga yi ndax mayga bi nekk nag au cœur de la ville de de Thiès nekk nag juste ci wetu station bi nekk mayga boo xam ne nag ñu bari dañ fiy faral di ñëw di fi reer see mu nekk mayga boo xam ne presque Thiès waay ñu si bari xam nañ ko mais gis nga nag actuellement. état d'urgence bi dafa obligé tax ñoom daanaka seen liggéey doxatul parce que guddi gi lañu ëppoon li ñuy jaay daanaka euh, suba gi léegi sax li ñuy jaay du bari loolu nag xëy na nekk na euh, jafe-jafe bu boo xam ne ñu ngi koy dund mais li ci am solo rek mooy sàmmonteeg euh, consignes yi nga xam ne ministre la santé et sociale joxe na ko wut masque di sol gant di fexe di di raxas say loxo saa su ne mais également place yi aussi ñu ñu koy désinfecté yi ndax yéen a ngi veillé aussi ci set place bi place bi gën a gën a set ndax yoru yéen ngi ci yéen a ngi ci bàyyi xel maa la ko wax de mu ngi ne ñaari lay andi bi ma ne dara manqué fi mm-hmm. dara mm-hmm. gaa yi ngay wax ak mag si yëpp mu ngi fi mm-hmm. yëpp mais waaw waaw mais doo gis client client moom ku la wax da koy gis amul place bi comme li nga ko waxee rek place bi ci Thiès yëpp a ko xam mais mi ngi ni ngay wax sax seen client yi doon ñëw di reer si jamono ji frère amul amul. non lan nga leen di wax. amul léeg-léeg ñoom dañuy génn sax mais léeg-léeg bu ma tasee ak ñoom nee na bi moom dafa war a jeex. yenn saa yi kenn du la woo mais. waaw loolu laa wax loolu laa la hmm. ah, may woo wala affaire bi daal da ngay waaru quoi ma ne leen waaw da waaru mais yeneen ko yàlla jëlee fii rek. voilà. Euh, jërëjëf euh, mbokk internet yi kon nag euh, nañu gën a rek sàmmonteeg consigne du ministère de la santé et de l'action sociale ndax feebar bi ñun ñoo ko war a xeexal suñu bokk Ahmadou lii moo nekkoon ci kàddu gi feggoon ak aadama Ndiaye ci wàllu caméra bi jërë ngeen jëf